asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 12 février 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi ñu yëg ñu ubbeeku nag ci yëglikaay biiru sunu làmb que mu xëy dalal nag mooy premier tigre de Fass ba muy Mbaye Guèye mu mel ni nag moom magum waxoon naa ko lay bëgg a doon waaye du doon magum xamoon naa ko ndax nag li amoon bërki démb ci diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu ca la Mbaye xëy nee na moom day fi mu nekk ni day dafa ragal wala boog daa tiit wala boog loo ci mën a dégg daal am na ñoo xam ne boog fi mu nekk ni moom ñimeetuñu làmb ji Mbaye Guèye nee na ñi ca njëkk mooy amateur vrai yi moom fi mu nekk ni pour ñu déplacé wu ñëw di seetaan làmb dañ koy xaw di ragal ak di ko tiit ndax li ko waral mooy coow leeg xeex beeg violence bi ñu ne ko déet waay mu ne looloo am de te itam sax ne jàpp na ne sponsor ya ñoom it loola moo leen gën a làmb ji ndax nag ñoom bëgguñu di ñëw di jaxasoo ci loo xam ne day am ay violence ak yu mel ni ki noonu jàpp na ne tamit arène nationale ba siin waaye nañ ko liggéeyee maanaam daal tabax bañ ko tabax dañ ko tabax ñoom ci seen norme dëkk waaye tabaxuñ ko ci sunu norme dëkk mel ni ki daal mbay géey loolu la xëy tey ñëw di ko wax keneen koo xam ne nii moom wala koo xam ne doom la ci moom mbay géey yoroon ko ci écrim muy écri face zàlloo nag moo xëy tey di wax ca la ko génne écri face ci waxtaan wu yaatu mu séq ak yéenekaay bi di sunu làmb waaye ñëw na tamit ci diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé zal daal mu ngay dànkaafu Ama ne na li leer ba leer day kii li wàllum xeex moom arrangé wu la ci combat bi booy lijjanti lijjanti ji leneen ndax nag xeex moom manuloo ko te tey li leer ba leer garde bu baax jàlloo jàpp na ne kii nga xam ne nii moo di Ama Baldé amu ko diggante booy ñang ki nga xam ne nii moo di Balla gay itam Zallo wax na ca la mu xamle daal ne na li leer ba leer kii nga xam ne nii moo di Balla ak booy ñang Zallo ne na heure ba jot na ngir ñoom ñaar ñu bëre Zalla xëy tey di wax Matar ba daa mel ni moom itam fekkaat nañ ko ci yëglikaay ba moom itam mu ngay dànkaafu de mu ngay xamle ne daal violence bi moom bu continuer de ah moom ministre ba daal fa la yemale ay kàddoom la ca des mu nga ca biir yëglekaay bi di sunu lamb ka nga xam ne nag wala ñaq waral coow la kenn ci ñoom muy ñaq jariñu moom mu nga xëy ne na li leer ba leer daal moom day mu ngay balu àq sénégalais yi waaye rawatina waa CNC bi ñaq daal nee na nañu ko jéggal ndax daal jàpp na ne moom lii moom du jikkoom te itam nag du ay jëfam loolu la ñaq jariñu xëy tey ñëw dina ko wax ci yëglekaay boobu nga xam ne moo di record ba tey fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV moom Aline Seyde moo fa nekk Aline Seyde nag ginnaaw bañ ko ajee moom jàpp moom day ndap moom boo cay def di ca def bis bu feesee tuuru dong lay def te bu tuuroo day wala ngaan ne na moo tax li mu def bërki dem mu def ko ndax moom jàpp na ne loolu du jikkoom tey ëllëg waxi noppi alin Seye moo xëy foofa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV di fa wax waaye tamit na jéggal na kii di Aly Ndaw ñu ne ko de waaye Aly ne billaay maa ko waat jéggal naa ko amatul lenn loo xam ne ni maa ngi ko koy toppee mu mel ni que moom daal waxtaan na foofa waxtaan wu yaatoo yaato yaatu moom Alioune Seyde ca Leewtoo TV waaye bu nu continuer dem ci yëglikaay bi di record moom Sa Thiès la xëy dalal Sa nag mook Abou Ndour Seck waxtaan wu yaatu saa ne na sama diggante gi ni Junior ne na fi mu nekk nii day maanaam déggoo daal dina cay am ngir ñu bëree loolu mooy waxi Sa Thiès ak promoteur ba ko bëgg waaye nag dàqul ne na beneen promoteur bu ñëwee fay ko lu ëpp loolu itam ne na bu sama diggante garga dama koy jël de Sa xëy Seck ak Abou Ndour waxtaan wu yaatoo yaato ñu ne ko waa say anne balance Sa Thiès ne année balance li ko indi lenn dong la wane année wala année balance bi ñi ma war a bëreel xëy na ñoo nangu ko na jël bëre ak man moo tax ne na moom mu def li nga xam ne nii moo di année balance ñu ne ko nag école duubalees saa ne na école ba man maa ko créé kenn mënu ma faa dàq ne na ba ci wéy juram sax dàq ko fa mënuta ne ndax moom moo ko créé wàllum vivacité am ak ak gaawaayam ci làmb saa ne na ma yoroon cent kilos maanaam téeméeri kilo fanweer ne na du tere samay gaawaay dama koy amee ak samay ay enseignement loolu wax na ko ñëw na tamit ci wàllum sponsor yoo xam ne seenug ñëw ci làmb ji tudd na leen moo xam nay claak ay Adidas ñu mel ni kii noona ba ca Pima saa cee say wax moom daal xëy na tey seq waxtaan wu yaatoo yaatu ka nga xam ne nii moo di Abu Ndour bu record keneen koo xam ne nii moom xëy na tey ci yëglikaay bii di sunu làmb nu fekk ko fa muy kii nga xam ne nii moom moo di jàppal bu bëggee dégg daal moom mu nga xëy di wax wala ñu xëy boog di ko waxal muy Malick ngoom ma nga xam ne nag la 16 février dañ koo nar a fa nga xam ne mooy ca arène Adrien Senghor loolu nag moom moo tax mbër ya ñépp nga koy defal ay vidéo di ko remercier di ko ñaanal yàlla moom Malick Ngom arbitre bi nga xam ne nii arbitre bu mag a mag la nekk ca làmb ji yàgg maar te Malick Ngom yemut ca loola neex deret bay bëgg a dee xuloo amee jàppal ni du maalik bu xeex amee du Malick dóorulu xeer sànniwul deful kenn dara day reetaan ba ba muy arbitré sax day reetaan Malick ngoom defe naa ne ku ne xam nga ko ndax diggante Eumeu Sène ak Modou Lo ku ko fatleku mooy arbitre ba defoon jaloore ju rëy ja mu mel ne ko moom Malick Ngom moomu yàgg maar roy ko baax na ci seneesu Sénégal bi ndax nag koo xam ne nii xuloowoo xeexoo mattewoo gajewoo yàgg maar bu ñëpp mel ne yow jàmm war naa mën a am ci réew mi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 mu ne euh, léegi amateurs yi sax dañu ragal léegi di dem seetaani làmb ñan tamit sponsor ni ngi daw te lii nu wane di dimanche tamit dina tax tamit làmb ji gën a manqué sponsor Babacar waaw Mbaye Gueye moom moo wax loolu que ni maanaam daal maanaam dafa dànkaafu comme ni mu ko waxee sànq magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko wax na dëgg boo gisee luy raam jëm si ci ñag bi te mu leer la ne su fa amee kër du fa gaaw a jóg nga teel a alerté ñi wax ak ñoom ñu teel koo gàttandu balaa mu faa yegg si xëy na moo tax mu xëy wax te yaakaar naa ne bu waxee si làmb war na ko mën a déglu ndax ci côté sport bi li mu ci waroon def yëpp dafa yaakaar naa def na ko ci kon defe naa li mu wax tamit dànkaafu la kon ñu ñu nekk si làmb di composantu làmb yi ñu ñoo war a xoolaat suñu comportement xolaat suñu taxawaay parce que tamit am na loo xam ne nii mënta continuer waxuma sax ay sponsor ak yooyu mais violence ci boppam moo baaxul maanaam violence moom la nit war nit moo war a xool moroomam nitam di ko teg loo xam ne ni wóor na ko ne lii violence la moo xam parce que violence am na ci ay kàddu am na ci ay wax am na ci ay bind am na ba ci vidéo yi ñu nekk nii di ko def yaa ngi dégg am na ba ci yëkkate arme jam ko sa moroomam nit nit moo war a jëmale moroomam nitam maanaam il faut ñu défendrante ñun en tant que nit balaa ñuy wax sax ay sponsor ak yooyu yaa ngi dégg parce que sponsor yi comme benn affaire am na dinañ faral di wax loolu mais ci benn côté tamit dama ci dul d'accord parce que am na lu tax am na yeneen discipline yoo fay dem yaa ngi dégg football bi ci àddina bi day am ay violence des fois te sponsor du tax ñu jógee faak yu mel nekki noonu mais dama bëgg ñu MMA bi sax voilà kon yooyu day am ci supporter yeeg yooyu mais li am solo mooy nit ñi ci suñu wàll bopp ñun nañu défendrante ci ay kaddu défendrante ci ay jëf xam nga ba nga xam ne yenn yi ci ab wàllum violence du am suñu diggante quoi mi ngi wax tamit ci arène nationale bi parce que tamit bu violence yi amee woon foofu dimanche ñu bëri nee nañu arène nationale bi li ñu ko tabaxee moom moom nag méygee dafa mel mi ngi loolu nit ñoo ñu wax nee na dafa nañ ko tabax si norme chinoise maanaam nañoo jël stade chinois yi bu ko fii euh, li ñu ko tabaxee chinois euh, stade ko tabaxee moom lañ ñëw bu ko tabaxee fii Sénégal te nee na réalité yu bokkul waaw loolu daal li am solo mooy kanta nañ ko tabaxee ni ñu ko tabaxee fii rek li am solo mooy même ñun ñëpp ñu ngi wax naan ni ñu ko tabaxee ni ko tabaxee d'accord na mën nañ koo wax waaye

moom ci ay biir ay déclaration moom capitaine Ba yaa ngi dégg ci li ñu doon waxtaane noonu xamal na leen même tey dëkk yooyu ñuy wax ay Siin ak yooyu boo fa demee tey seen stade wala seen kii benn trait bu rouge la ñuy def bu ñu ko defee kenn du ko jéggi du sax am ay miir ak ay barrière ba muy gudd yooyu yaa ngi dégg loolu nag li ko waral mooy discipline kon li am solo mooy nañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay parce que état fexe na ba ñu am arène bu mel mais plus de quatre cent et quelques le directeur des infrastructures nee na fayagu maanaam defagu nañ sa defagu nañ ko fa maanaam damm nañ ko fa plus de quatre cent et quelques. compte chaise anglaise yu nekk douche ñu yóbbu. voilà kon muy ñun ñooy xoolaat suñu bopp ndey ko ma faal loolu moo gën a. maanaam mbir mi du affaire tabax affaire bi daal yaru la daal. yar la di Youssou Ndour noonu yaru du la wàññi dara waaw te ku yaru ma ci tàngal ba Youssou Gurooy Ngaay nañu jéem a yaru benn ci sama bopp. keneen ki nga xam tamit euh, mer na lool muy ministre Matar Ba Matar Ba nee na nag violence bu mu gis dimanche la si euh, làmb ji arène nationale nee na lii nag dina tax nag làmb ji gën a suuxee frein la daal si làmb mën a développer fii Sénégal. waaw parce que moom moom moom moom ndeysaan li tax moom bu lii amee dina ci am lu ko naqari parce que moom dafa défendre lamb fu ne en tant que ministre des sports ba ñu naan ko ma yow yaay ministre des sports làmb ji maanaam làmb ji rek nga fi nekkal te yàlla xam na ne sport yëpp la fi Matar Ba nekkal mais dafa fekk ne dañuy sénégalais di doomu national am yaakaar naa c'est très normal lamb li suñu sport national yaa ngi dégg mu jàpp ne lamb war na koo taxaw xëy na moo tax effort yooyu mu koy def mu koy def kon nag bu ñëwee ba ca miir biir ay nit yoo ne nii sama waay mooy loolu kenn xamul seen ay intention ak lu leen a jóg ñu def jëf ju ñaaw ji defe naa ne li wax itam dëgg la nag waaw mooy li ñu waxoon rek ndey ku ma faal waaw moom man des toujours si combat bi euh, Babacar mooy événement yi amoon dimanche fi arène nationale ginnaaw nag bu ko CNG daanee moom ak écurie euh, benn at boo xam ne ñoom ñoom kenn du si bëre ñàkk jël na daal si journal bi di baalu waa waaw loo too tooñ lu mu rëy rëy suñu papa Maxime Raganda doon wax ne jéggal maa ko ëpp doole waaw xam bu fekkee jàpp na ne te am na te ci côté am la jóge te effectivement loolu moo am c'est très normal mu seen CNG waaye jégglu peuple sénégalais bi loolu ñàkk def itam defe naa mook àddina an ndax yàlla mi ñu bind sàkkuñu ne ñu jaamu leen ma daf daf ñoo ubbil ay bunt pour buñ ko tooñee ñu jégglu ko kon defe naa itam lii ay règlement la ay nit a ko bind bu tooñee wala ku bokk si moom tooñ njuumte la am na droit jéggulu ko li am solo nag mooy olof day wax nag ñax gu ñax gu wow des fois dana lakk lakkaale gu tooy loolu moo tax lii am ni tey am ndax buñ ko ajee ajaale ña nga xam ne ci écurie ba lañ bokk dana metti ci ñoom te am na ci mbër yoo xam ne ñàkkul ñu ngeeg avancé jàmbur kon yaakaar naa ne loolu tamit warees na ko mën a xoolaat waaw Babacar nag suñ jógee nag si événement yooyu amoon dimanche arène nationale dem nag si combat bi nga xam ni mooy war dox si diggante Modou ak Ama Baldé kii di Zallo euh, nekkoon nekkoon euh, ancien nekkoon mbër léegi mu nekk mu nekk léegi technicien moom daal lu mu gis nee na daal Modou ak Ama Baldé Ama Baldé mu jéem a sax xeex ak ki nga xam ne mooy Modou ndax moom mii di Ama Baldé amul garde bu baax Babacar waaw waxi technicien la de Zal jaa jàpp mu Ama teg ci côté bagaar moo du moom moo duñ ci benn waaw loolu nag dànkaafu la damay jàpp ne da koo wax ngir soññ Ama Baldé ngir mu gën a liggéey ci loolu parce que itam ah Modou Lo dey mën na bagaar ci kaw lewato mën na bagaaru ak rosaas maanaam bu ngeen jàppante gis nañu itam yooyu yëpp mu wane ci boppam parce que dóor na mbër mu daanu dóor na mbër yóbbu ardo ak yu mel ni ki doon ko yaakaar naa ne loolu zàlloo wax pour man kaw Ama Baldé nañ ci tiiree li nga xam ne mooy ay leçon rek pour yokk seen

teewul nag sport di nga am defet am na ciy defet waaye li ma leer ba leer moom ah ku lekk avance am di nga xam ne itam lekk nga avance waaye nag it seq na ko xale boo xam ne ni ku dogu la ci làmb muy Ama Baldé te lu mu gis pour moom war na ko mën a jëli mooy lu am solo Babacar su jógee na sunu laam nañu dem fi nga xam ne mooy record record ki euh, ak benn promoteur a xam ne mooy Yékini mais na su gisee promoteur bu ko fay li nga xam ne fay nañ ko moom mooy Yékini Junior dina bëre ak ki nga xam ne ah, ba <laughs> daa bokk ci mbir mi nag du mën a ñàkk poos yi faw muy am dara Ndeye Coumba Fall kon loolu Sa Thiès wax it dàq mu déggool pour ñu bëre bëreel Yékini Junior yàlla nañu déggoo ba continuer ba mu mën ko bëreel ah bu fekkente ne beneen combat tamit war na ko mën a bëreel ndax moo garga combat waaye lu ci mën a dégg daal loolu mu wax itam xel war na koo mën a nangu waaye nag comme bu joxee accord tamit itam ba jox nit kàddoom itam kàddu dañ koy ñaan mu bàyyi ci xel parce kàddu nag Ndeye Coumba Fall moo war a nekk signature doomu aadama lu fort la mi ngi jox tamit ay idée ki nga xam euh, a ni Puma waaw am na solo de wax na dëgg de waaw nit moom da ngay rëy bët ay aayul parce que ñun war nañu mën a ñëw ci suñu sport bi dox ko euh, maanaam jàpp ci loolu nag ci promoteurs yi lay nekk ak seen communication ak ñi leen di wër waaw ak ñoo bëri tamit ñu di xoolaat seeni i contre comportement ak seen ay waxin loolu da ci am solo ndax promoteurs yi moom li may wax rek euh, ku leen dimbileetul waru leen sax parce que li tax mooy ay privé la ñu ñii ay mécanicien lañ ñii ay tôlier ñii ay commerçant ñii leneen ak leneen te ñu ngi jël la ñu am akas néew di ko dugal ci làmb ji des fois ñu gagné des fois ñu perdre kon li ñu leen mën a jàppalee mooy daal ñoom mbër yi gën a dimbali promoteurs yi surtout ma ci côté liggéey bi daal waaw Babacar nu jeexee nag ak Leewtoo TV dem doxantu ngeen foofu ci arène nationale euh, benn visite après incident yu fa amoon diggante CNG a euh, ñu ngi euh, nit ki daal nday Kumba Fall balaa ñu naan la nii la mel nga di ko gëm bàyyil ba toog ak moom moo gën a wóor waaye xam naa daal seen liggéey ñu ngi koy def ci réew mi daa fekk ne nag ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay rek te xalaat na ne lamb yii di ñëw ah beneen dispositif dina am waa néew ma kenn du yàq de ndax ki bëgg yàq moom te yàq na rek ci xelam contrôler ko dana jafe waaye nag xalaat naa boo ko defee ba pare pour nga bëri ñu la cay suivre dina euh, mën naa jafe bi yoon moom waaw Babacar nag sa kàddu yu rafet yooyu la leen di tàggoo di leen jox di daje suba incha allah mais balaa ba ma nuyu sama sunu yaay mère Sow nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astan ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom maam Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ni mooy Grand Fallou euh, di nuyu aussi Abdou euh, depuis États-Unis Baye Fall Diamagal Papa Cité di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Ramos Ndiaye Khoudia Seck chéri Asek depuis Italie aussi maa ngi koy waa nuyu ñëpp rek ñaanal ñëpp jàmm rawatina ñi nga xam ne dañ ñuy suivre rek internet yi di leen wax ne que ñun ñoom ñoo tax ñun ñu toog fii est ngi dégg lu ngeen ñu wax rek bàyyi nañ ci xel moo xam bu ngeen ñu jubbantee la wala bu ngeen ñu félicité parce que loolu moo am ci àddina nit ki da nga ko naan defaral sa toogaay ki la naan defaral sa toogaay daa bëgg nga gën a toog toogaay bu baax ki lay félicité itam dafa jàpp ne la nga def baax na kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Khadiros depuis Allemagne xam nga ñoom Abdoulaye mbay Ngañ Sow du ñu fàtte kenn fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye Omar Dia depuis Allemagne yow tamit maa ngi lay nuyu di nuyu sa xarit Bousso Mamadou Bousso di nuyu képp koo xam ne daal mu ngi ñuy suivre à travers le monde di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuy suñu papa Bekaay mbay tamit encore une fois parce que démb woo nañu TFM waxtaan ak ñun ci làmb te defe naa loolu ama am solo kon moom yaakaar naan moom tamit am na cër bu mu waaw waaw bu dul ñëpp itam ñu bëri woon na leen boo ñi ñu gën a xam ci làmb ñu ciy yëngutu kon per Bekaay daal yàlla na jàmmam yàgg di ko nuyu di nuyu waa groupe Futurs Médias yépp di ñaanal borom kër ga Youssou Ndour yàlla gën ko yokk kàttan parce que mu ngi yokk emploi ci réew mi te defe naa Sénégal loolu la soxla waaye du violence Ndeye Coumba Fall kon boog ba suba incha allah